Bousso Gaydel l'héritier attitré de Borom Touba Khadim Rasoul le sauveur de la jeunesse ki nga xamante ni ndaw ñi ñëpp ñu ngi seen ginnaaw yaakaar yi ndaw ñi tey ak ëllëg mi ngi noonu nag agsi ci biir tànt bi ñu war koo jox nag ay cadeau gis nga ko moom cadeau bu ñu koy jox taamu na ci rek moom loo ko mën a jox te rek joxu ko Serigne Touba mën na di jox ko dara kon nag ñu maase ñun ñëpp déglu Serigne bi Serigne Khadim Lo Gaydel moom Serigne moom Serigne Modou Lo dëkk bi ak Cheikh Moustapha ak Serigne Dame Lo ak mboolem xam ne ñooy wéy jur yi fi nekk maa ngi leen siyaar ci bisub si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul lu dàq ci màggal bi yàlla nay ma leen gis ngeen may gis may waxtaan ci Ahmadou fils de Ahmadou fils su ko defee nag noonu lay dal di jukkee tuuti rek ci waxtaan wi def ko ñaari xaaj bi ci njëkk may barkeelu tuuti rek ci sëriñ bi ci bis bi ci yoonu géej gi bi ko ñaaree lit dinaa ci dikk tuuti rek ci sunu digg ak sëñ bi ak ci wàlluk àddina ci kaw loolu nag bis bii di bis bi nga xam ne ci la cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul maulana ci la amee léppam ci bis bi nag ci la bàyyikoo woon ci dëkkam bii di Mbàkke Baari di fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bisub tey mu ne ixlam ayuhal alaaqu saalihu kafaana allahu dara la kulle taalih inni xarajtu yowma sabti min shahri safar min dari lati banaytuha fi ardi jolof bahtama attatani bara'ati amiri ndari moy xamal yow sama mbokk mu bax mu yiwi ne bis di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ci la jot bata xal bi nga xamne mi ngi joge won ci gouverneur bi nekkon ci ndax ngir nak ma wara ñew wuy ci mu ne bis bi nak wéy nak fasiyene nak dem dajje jeeg ñom neena na bobu ñama yoni won ñom tubab ñoñu neena ma ngi dajje ak ñom ci dajje bu ñeuk wala khit waziratu allazi jamaha aljaysuhu wa tilka daari mabniyatu li tarbiyati wa ta'limi xasiyata zalika alyawma fil mawdihi jamian yu xaala lahu jeewal mu ne ngi njëkk a taseeg ñii ñu yónni woon te seen ay kilifa yónni leen mbooleem soldaar yooyu ci dëkk bii nga xam ne nee na mooy tudd jeewal mu ne nag eh, muy dëkk la boo xam ne dëkkub tarbiya la woon di dëkkub xam-xam boo xam ne moom sàkkoon na ko nag ci la fa jóge nag ci Mbàkke Baari fa mu njëkk a daje ak ñooñu mooy foofu ca jeewal sancoon Mbàkke Baari nag ngir tarbiya waaye sancoon ko ngir xam-xam foofee ca jeewal nee fa la njëkk a ak ahlu badar ñu dal di koy dal nee fofé nak fa la sunu borom nag njëkk nak dal di wax nee kàddu gu yàlla nu dégg ko mu dal di wax ci wax ju leer mu waxanteeg wa ahlul badr inna habda hadha alhadimi rasuli ahrajahu fujaran fa saara munfadan fasxadu li bi anni jaxaltuhu minkum mu ne waa ahlu badar na ngeen xam sama jaam bii di xaadimu rasul di jaamub sayidina muhammad mu ne saay saay si ñu ngi nii tey ji génnee ko waaye na ngeen seede ni bis ni ki tey boole naa ko ci yéen sëriñ bi nee na bi mu jógee rek moom ci la daal di bokk nag ci ba badar muy lim doon sàkk te loola ko taxoon di dugg xalwa fii ci tuubaan ci dëkk bii ngir doon sàkk loola nee na ñu daal di tontu ne xabir naa waradina fasxat la naa yaa muxjisal kaafiran innahu laa yete wuduwan bi ma yalihu wax zeynaahu ñoom it ñu tontu borom bi ne ko nangu nañu te nangul nañ ko bokk na ci ñun waaye du ñu nangu benn saay-saay bu jël di ko jëmee lu jaaduwul ginnaaw bi nga xamee ne nee na julli na suba ba noppi nag la daal di xëyee jeewal daal di jubali nag kokki kër sëriñ maxtaar ndumbe jóob nee na foofu nag waxiltu fi l xariyati musammati bi kokki daari cheikh maxtaar الذي كان في زمنه سيد كل من كان في أمة سيدنا محمد محتار في الأرض الله جرف ني ني ني خامن شيخ محتار مومو نيكون كوكي دي محتار لو بيجوم نينا يالا ديفون نا ني مو دونون خطب زمان دونون سانغوب كيب كو خامن داغا بوكون سي رسول الله تامو تامون تك تيو نينا محتار لو بيجوم مو نيكون سا nee na foofu yi nag ci jeewal ci kokki ci kër Sëñ Muxtaar Dumbe fa la daal di tàmbalee nag di woy xasid ak asmaawul ahlul badri ba mu koy tàmbali la daal di woo ku ñuy wax Masamba gàdd ndàkk mu ne ko wutal ma àlliwa kooku dem seet àlliwa ju mag indil ko fa la tàmbalee nag di def xaside gi nag di leen di leen di woy waaja ñoom ñooñu mu ne nag fa jóge na foofu yi ca kokki nag dem fanaani Louga ne na laataa fajar di jot nee na fekk na ko nag mu egg foofa ca Louga waa réew ma yëpp nag ak waa Louga yëpp daje dikk di ko siyaare dikk nag ñëw nag ne ko dañu laa bëgg jàppale ci lii nga xam ne moom nga jublu muy jihaat fas yéene bu dee ay bakkan a koy def ak i arme ñun noppi nañu pour jàppale la mu tontu leen ni leen yàlla moo ëpp yërmande ci man te ñëpp te yàlla moomu man bawuma benn fànn. bu dee jihaat ci jaasi nag banaa ko banaa ko ja nag ak loolu gën naa gudd ku dem gëstu ji ci li ma waxtaan ci li weesu danga ci gën a dégg lu bari loo xam ne indi naa ko ca nee na foofu ci Louga fa la nekk nag ba tàkkusaan sa ca ëllëg sa di ko ca fekk mu jubali nag daal jëm ca gaar ba naka mu dugg ci gaar gaar bi bëgg wëy jëm ca saxaar ga fa ko daldi nag Seydina Jibril daal di ñëw taxaw ci welam ne ko sa borom di na la waxtu mu tedd bi nee na ci laa daal di julli ba yeggal nee na ba mu jullee ba yeggal nag la dal di tudd yàlla tuddam yooyu subhaana man fil bahri wal bahri mahan ajran jawaari kulla man jamaa tudd naa seetlu buur bi nga xam ne muy ci géej muy ci jéeri lépp lu ci nekk yàlla sàkk na lu cay daw moo xam bato la moo xam lu mu doon wala ba ci ay daamar subhaana man jaada li safina fi xikmati li saaxibil madina mu ne tudd na seetlu buur bi nga xam ne moo ko sàkkal tey jii daaba ju mel ni lu mën a war ba mën a mën a dem liggéeyi muhammadul madina nee na tudd na seetlu buur boobu subhaana man yuridu fi nahaari alleyli asraari fi ihaari mu ne tudd na seetlu buur bi nga xam ne mooy feeñal lu nëbb di jëlit lu lëndëm ak lu leer di feeñal nee na it mooy feeñal baatin ci zahir mu daldi di fay gonte nag daal fanaani ndar ba mu xëyee nag la jot ndigal ci yonent bi ngir nag daldi dem dali ca kër Ahmed Xoraysin ca ndar ca nag conseil privé wa nag tàmbali nag ñoom tubaab yi di daje nag di càmbar nag di seet mbirum Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba naka nag lañ ciy jublu ak naka lañ ciy def ñu nekk ca nag di xalaat ba xam dañu koy rey ba xam dañu koy tëj kaso ba xam dañ koy génne mu def te loolu moo amoon ci Seydina Muhammad bi nga xamee ni eh, daje nañu assemblée ba di waa Daarul wa di xool naka lañuy def sëriñ ak ñett ak moom ñu boole leen tëj leen ndax xam nañ ne ñoom ki ñuy seet mooy Cheikh Ahmadou Bamba te xam nañ tubaab bi wóor na ne ko moom li mu bëgg kii du ko def waaye mën na am ñële def ko bañ yekkee ci sëriñ bi na ma ko waxee ci waxtaan yi weesu ngeen dégg ko ba ñu ko woowee ci turam mu tedd wax mu wuyu moo ñëw signé nekk ñeenteel bi di numéro 4 ba mu ñëwee nag moom moo signé tur loolu di xul wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad loolu nag moo indi mbir ma ca leen daal nekk nag ñoom ñooñu xam ne nag kon kii ñuy seet kii la ñu daal tàmbali nag yëngu-yëngu ba nag ak sabab ba daal di tàmbali ñu daldi di jël nag sëriñ bi jëlee ko ndar ci weeru gàmmu bisub alxamis ci atum ji sisin nag mu daal jëm ndakaaru mu yegg fa laata timis di jot fekk nee na mi ngi yendoo koor nee na moom la yendoo ci bis boobu ci bisu alxamis jooju nee na ba mu yegg see ñu dugal bu ci lëndëm bu néeg bu lëndëm te xat te metti nee na ci la dal di dugg nee na bépp musiba ma nga fa lépp luy metti ma nga fa nee na naqara nga fa woo xam ne ba bi nga xamee ne ñëw na ba jàppuk mag ba toog ci njaaram gi daan na toog ba yàgg mu ne su xalaatee la nga xam ne daj na ko ci bi mu nekkee ndakaaru ci néeg boobu nee na du bëgg lu dul day fab jaasi fas yéene rek dem xeexiwaat nag ci zaayir ñi ko dugaloon ci metti métti boobu ndax def nañ fa lu ko metti loo xam ne du ko tudd mukk ci làmmiñam moo indi isa zakkatu zalikal mabita wa zalikal amira wa sabuta amir boobu ko dugaloon foofu lay wax ci biir nag ne gouverneur boobu ko tàbbaloon foofu wax ne saa bu ma fàttalikoo loolu rek du ma bëgg lu dul fab jaasi rek dem dal ci kawam waaye nag nafsi wala kinna sabaxani ma bakkan bi nag moo koy yedd ras yonent bi yedd ko mu amul dal ci loolu nag ci la sëriñ bi nekk ba ñu xëyee ci bisu àjjuma yooyu ci la sëriñ bi nag ñu daal di nekk di ko taamul ba jàpp nag dugal ko nag ca gaal ga sëriñ bi war a dem liggéey yi ca la daal tàmbali nag foofu ñu dugal ko ci gaal gi nag mu dugg ca biir nee na ba ma nekkee ci biir gaal gi mu ne sama taalibe yu bari fekk nañu ma fa mu ne bokk na ci sama taalibe bu dëggal bi bu bu dëggal bi murit bu jàmbaar bi mu ne Ibrahima Fall mu ne fekk na ma fayit sama mbokk mi di Cheikh Mandoumbe Mbacke waaye ñoom ñooñu ñëpp da leen dénk ne leen dellu leen damay liggéey li yàlla bu ma ñibbisee rek mu neex lii ma bàyyi ginnaaw dara du fi yàq waaye nag sant naa leen ngeen nekk ci ragal yàlla ak topp yàlla yàlla mu nag mosuma koo dénk sax bant ba dikk fekk ci dara fellat ci mu ne dénk naa leen koo xam ne dinaa dem dellu siwaat te fi la leen fekk sëriñ bi ginnaawam ñi dëggaloon te topp ko amul kenn kun ko wax ne ko diw génn na àddina diiru lim nekk ci géej gi dara yàquwul kenn deewul hmm? mu ne taalibe yooyu nag naka ñu dëdd rek nee na bato bi daal di déqe nag tegu nag ci mbeex mi wuti Conakry nee na ma wéet fa man dong waaye foofu laa njëkk amee nag martaba xadimu rasul moom lay wax ne xallama ni rahmaanu fi safina bi ànd ni xadimu zil madina keroog lañ ko xamal ne ko yaay xaadimu rasul ndax yaay liggéeyal muhammadul madina nee na keroog ci biir gaal googu la am benn saalum saalum boo xam ne ma ngi ko fekk ci biir nuyu ko ne ko man ziyaare la rek moo ma tax a jóg ngir man damaa dégg ñu ne dañ lay yóbbu Gabon déggal nee na ci waa ci la yëgee ne moom Gabon la jëm nee na xamuloon fu mu jëm ngir topp ndigalal yàlla waxtaane naa nag yoonu géej gi waaye bii tënk la ci wuuti na ak yi ci jàll sëriñ bi nee na mu daal di nekk nag di tasal waa ji ay ndénkaan yooyu dugal ko ci maax naa bu laa ilaaha illallah sëriñ bi ne ko foo mën a nekk na nga xam ne yàlla rek kay buur amul benn buur bu dul yàlla suñu boroom te it na nga xam ne képp koo jublu ku dul Seydina Muhammad bis dina jot nga xam ne moom rek a jëral jublu ku jubluwul yàlla it dina jot it nga xam ne yàlla rek a jëral jublu na nga xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy buntub yàlla bi te ku ko réere it bis dina jot nga xam ne Muhammad rek mooy buntub yàlla bi sëriñ bi nee xaddiyee jooju laa def ci yàlla dénk ko waa saalum saalum boobu moo tax bu ma déggee saalum saalum yi ñuy fonk laay laay laa di ko sikkar ma ne Bàmba mooy ponkal mhm. <laughs> ah moom da wax ne xaddiyati safar la daa ko naakiri lil Moustapha maahid bi laa manaakiri mu ne sama xaddiyee jooju fa ma sell na fa ko naakiri ñeel Seydina Muhammad alayhi salaatu wa addiya jooju nag mooy firi gi mu firil waa ji ak maanaa bi mu ko jox ci laa ilaha illa loolu moo ko waral ci la daal di waraat gaal ga nag daal di wuti Karambassa Karambassa nag mooy grand mooy Côte d'Ivoire na ci biir gaal gi bi mu duggee nag wuti Côte d'Ivoire la gis benn koo xam ne ab noon la nee bi ngi nekk ci biir tàmbali nag di ko wax wax ju ñaaw sëriñ bi ne ñu jekk ba yàgg rek machine bi mel ni am lu ci yàpp luy riir ba waaji kenn déggatul sax la muy wax ba yàgg waaji mel ni rek lu nu seeyal mu disparaître kenn kenn gisutu ko moom lay wax ne ashabari anillahu mu karambasa habla mubarasa anihal basa noonu boobu nag lay wax ni keroog la ko yàlla seeyal mu seey bam ne mendeg nee na gisatu ko sëriñ bi nag nee na booba it yoroon na benn biteelu misk ndax booba ma nga daal di wuti nag réewum nga xam ne mooy réewum daaw réewum daaw mi moomu ngay dégg muy wax di tudd daaw fu bari daaw mi mooy bene mooy bene bi moom lay tudd toujours lu bari waaye moom du jël baatu bene bi baatu daaw mi bi lay wax nee na booba it mi ngi amee benn bitilu misk fas yéene ko nag jëfandikoo ko ci ay téeréem ak laal ko tuuti ci sër yi mu sol nee na ñu daal di dikk jàpp ne biteelu saafara la muslaay la tubaab bi dikk ne ko panget nangu biteelu misk bi daal ne ko xërl sànni ci géej gi nee na ma muñee ko yàlla nee na ma jëm nag ca daaw mi wóoloo ma lu dul bi ma agsee mbooloo mu taxaw moo xam ne dañoo dégg ne dama faa war a agsi nee na ñu ñëw di ma rang ngir siyaare ma nee na ku ma nuyu jox ma bi benn biteelu misk moom lay wax ne daxaani raximu inda daw mi lahu bi ax na ani saw mi nee yàlla may na ma moom mii raxim di borom yërmande keroog ca ndaw mi ca ci biir ci bene ci biir xeet woowu defal na ko fa njëg goo xam ne ak pay goo xam ne amul sax waxaale dañoo tibb rek fay ko tukkeem bu rëy bii nag moo waral bis bu neex bii moo waral it fajug aajo gi ñu am ci bis bi moo waral it tedd nga yii ci am ndax ci tukkeem bii neena bi ma tukkeegul ku ñëw bëgg ma faj sa ajo dafa am ci ay maanaa ak i tegtal yu ma ko doon jaare waaye nag nee na ci géej gi nag ci laa nekk nag liggéey fa liggéey boo xam ne ci fii nag mujj nag képp koo xam ne jamononte naa ak yow boo tuddee sama tur baa nga yaakaar ma foo mën a nekk la nga bëgg rek bu dëggoo ci yow sa ajo faj nee na ci laa mujj nag ci tukki bii ci la ma yàlla defal nag ma far nag dib jant bu tim waa àddina ca kaw samay teer samay teeñeer man cheikh ahmadou bamba dina darale àddina te fépp la teeñeer yu dugg nee na falaa mujj nag mel ñëpp jant bu tim waa jamono nee na ñu jox ma fa nag mbooleem waayibu la duniya moom lay wax naan fa tilkal si nii na lati surtout bi xaa kasam si xusta dunia bi jaay xaa ili innama ahmalu bi niyati mu ne juróomi at yooyu ma def ca maa yomba mu ne ci laa mujj nag mel ñëpp jant man xaadimu rasul li may wax lépp moo ko bindal boppam waaw ah. <laughs> li may wax lépp lu ci nekk rek tey waxu sëriñ moo ko bindal boppam nee na foofu ca géej ga nag bi nga xam ne nag ci juróomi at yooyu nee na ci laa mujj nag sunu boroom nag daal di fab mangasinam yu rëy ak yëpp jël magasinam yu tedd yooyu nee na ñu jox ma ko nag nee na ma boole ko lépp di ko darale nee na ci laa tàmbali nag magasin yi sunu sun borom yi ma tàmbali diggante mulku ak malakut nee na mboolem pays yàlla bi jàpp jabarut nee keroog laa tàmbali nag ci bis boobu yor loxo bi di séddale ku fa séddooti maa la séddale nee na fii fa la ñu boole li liñ tuddee zaakirine yeeg saakireen yi nee na fab làmmiñu arab nag jox ma loolu xajul fii mi ngi ñëw ci ñaareelu kaset bi nee na keroog lañu rocc làmmiñu arab ak leerug làmmiñ wax jox ma moo indi kataba allahu tabaraka wa taala anna naazima hasi xasida wa haba allahu lahu ma lam yakuni li xayri man arabi wa xajjami nee na keroog it la ñoo may mboolem làmmiñu arab ak leerul làmmiñ wax yàlla suñu borom rocc ko jox ma ba xajam yi daan way ak ñi déggoon arab amuñu ko nee na bisu keroog laa ko am wahaba llahu tabaraka wa taala linnaasi bi hasi lxasid ixtisaasul xarsil azim di kitaabil azimi nee na keroog la ma yàlla may bu ma jëlatee sama xalima di bind nee na aras day daal di jaayu yëngu di màggal nee na fii laa ko amee wahaba llahu tabaraka wa taala linnaasi bi hasi lxasida ابتسام رسول الله عليه الصلاه والسلام بحلمه وبكاء ابليس وهدوء عز وجل بحلمه نينا تي بيس بي بو امول وون نينا تي لاكو سونو بروم ماي نك بو ييكتي تي خليمام سامبو تي داجي نينا رسول الله دي موج بغا جيس بنيا نينا بو جيري خليمام نينا لو جيتو لي اموكو وون واي نك تي بيس بي تي لا امي بو فاباتي خليمام دي بيند نينا بو ني تياس دي بيند nee na rasuulillaahi day muuñ bëgg a gis bëñ yi nee na looloo taxoon nag mujj gi mu bawoon bind sax adresse bind bind adresse sax defatu ko ndax ginnaaw lu mu yëkkatee ci di xalima rek yonent bi day ciy béggee nee looloo tax nangootul sax bind adresse ndax keroog lañ ko may loolu nee na ci lañ ko defal bu yëkkatee xalimaam rek iblis saay saay bi di yuuxu di jooy di daw ba lu dul nit ak jinne danga koy dégg ca kaw nee sunu borom it keroog may ma yoo xam ne kenn mësu koo gis bokk na ca may yooyu kataballahu wa tabaraka taala anna mina salaasina salaasati wa salaasina kawnu wa man xaadimu rasul mii bind téere bii nee na bokk na ci jaayante bu ma jaayanteek yàlla muy fanweer ak ñett yoo xam ne du ci dunyaa bokk na ci fanweer ak ñett yooyu mbindeef yi lépp lu yàlla bind mbindeef yi nee na keroog lañu ma leen may ñuy samay jaam ma sañ saa jëfandiku lu ma soob te yomal ki ak xiyam kenn du ne i pat ci bis bi nga xam ne mooy bisu màggalu Tuuba muy bis la boo xam ne ñun ñëpp dañ ciy bokk di ci dajaloo mu doon sunu bisub njéggal bisub njéggal la ci bu ñu xamee bis bi li mu tekki ak ci bu ñu xamee bis bi li boromam dëxañ ci biir bis bi bisuñ jéggal la benn nitu yàlla rekk boo xam ne ci njëlbeenam ci ay at yu néew la teel a gàddaay àddina di sol benn xaftaan weex di muuru muuraay ba bakkan bi ngay séen muy leer xat ak a ñuul bu ma saa jug rek jël téere yàlla bi bokk ko taf ci dënn ba dox di sàmmandal tànk ba nag di tëllëx kurus ga kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba moo jëloon bis moo jëloon bakkanam sacrifié ko jaay ko pour ñun ñu dund ci jàmm bëggoon xeet wii nekk ci jàmm ndax booba ay fitna mi ngi doon am ci réew mi fitna yi daan am ci réew mi nag ci booba jamono taxoon na moom mu jëloon nag li mu doonoon lépp pour libérer askan wi loolu tey jii ku ko mën a xam mooy képp kuy dund ci jàmm loolu tey ku ko mën a xam mooy képp kuy saadix sëriñ bi nag bokkoon ci moom ci boppam yu mu daan jàngale ndax boo dee topp dara laaj na sax nga jéem caa xam tuuti sax ci jikko yi laaj na sax nga jéem a xam ci lañuy ñuy topp loolu lan la bokkoon na ci ay jikkoom yaakaar yàlla bokkoon na ci boppam it li ko yàlla defal mu xam ko lu jàmm ñi wóolu Cheikh Ahmadou Bamba moom moo gënoon wóolu boppam hmm. ndax wóolu boppam rek a ko mayoon mu mën a ñëw ñu boole koo gaynde mu affronter gaynde gi ndax xam na ni da ci génn ndax dafa wóolu boppam bokkoon na ci ay jikkoom fulla ak fayda bokkoon na ci lu mu daan faral di dénkaani bu leen jaay seen ngor bokkoon na ci li mu daan wax xam ngi dee leen xam li ngeen bëgg te sax ca xam leen li ngeen bëgg te sax ca bokkoon na ci lim daan digle xol bu rafet waaye bokkoon na ci ay jikkoom it njëggal ni yàlla subhaanahu nekkee boroom xafuuru xafaar sëriñ bi nag ci loolu ci njëlbeenam xam ngeen ne moom ni ma ko waxee léegi ca conseil privé ba ca conseil privé ba nee naa leen dafa ndiroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lépp mook Seydina Muhammad waaye bi nga xamee ne ndiroo googu moom ndax yonent bi ku ne xam na ne rakki baayam boobu di nijaayam jooju di Abu Taalib moo ko yar kooku bi critique yi commencé ci famille bi ak waa Màkka dafa tàmbali woon di yoo ba mu gi sëriñ bi ci ba mujj gi yonent bi ci boppam nee woon nijaayam jooju soo ma bëgg soo ma bëggee bàyyi rek mu rafet ci ma rafet ci waaye nag kii nga xam ne man moom laay liggéeyal muy yàlla yàlla moom du ma bàyyi mukk te yàlla yit dana doy na ma sëkk te doyloo naa ko sëriñ bi ci njëlbeenam ku ne xam ne nijaayam sëriñ bu sóobe moo ko daan défendre ci famille bi ba mu demee ba mbir yi métti ba metti léeg mu wax yonent ci boxoon Abu Taalib moom la wax nijaayam ji ne ko soo bëggee it nga bàyyi ma rek sama digg ak mbokk yi te xam naa li nga ciy daj ak yépp waaye it mu jéggal ko noona te nijaayam jooju ak maam Jaara bokk ndey baay moo jur sëriñ Mbàkke so loolu nag moo nekkoon ci sëriñ bi ci ay taxaw yoo xam ne boo ko dee set rek daf ko nduróowu nag yonent bi ci ay fànn yu baree baree baree bari loolu nag indi na tey jii ndaje yoo xam ne ñu ngi koy bokk daje di màggal sëriñ tubaa fii ci tubaa mooy jaayante yoo xam ne daf koo jaayante woon ci giiru dundam jugoon ci nag fas yéene woon rek nekk koo xam ne kuy liggéeyal kuy liggéey la woon rek jëmee ci yonent ba giiru dundam loolu tey jii muy suñu réew mii ñu nekk sëriñ bi daf cee dajoon lu nekk fu ne jaarale ko fa natt bu ne mu gis ko waaye bis bi nag moo doonoon léppam kon nag waxtu woo xam ne ñun daje nañu ci biis bii ci lu mel nii lañu ci war a njëkk a seet rek nañ ci khol, njàngat yoo xam adi nañu xool ci ñaar ci bare bari lo xam ne dañu koy faral di ko di ko di ko di ko wax ak di ko xool waaye dafa am lu tubaab tuddee révolutionnaire révolutionnaire dëgg dëgg dëgg dëgg mooy kan mooy ki jéggal ay noonam te cheikh ahmadou pamb mooy vrai révolutionnaire bi mu demee di xeex ba dugg ci front dur yi ba jàpp gaay yi ba téye leen da leen ne yalax jéggalante yàlla rek a tax màggal gi nag bu leen fàtte ne dama leen a waxoon démb bi may ziar rek waa commission Zikroullah bi ak la ma leen gërëm wax leen ko foofu yëpp ak seeni ñaan dama leen ren dama fay duggee nag barkeb Serigne Fallou di faj aajo te dem sama yoon dama ko fee duggee nag waaye màggal gi ci boppam it dama leen cee wax la ma leen ca wax it ngeen dégg loola yéen ñi ñëpp daal seen aajo dana faj mu neex leen nag mu naqari leen nag sax nag màggalu daaw dama leen waxoon leen nit day ne ci jàmm nit day ne ci jàmm may nit ñi jàmm may yàlla jàmm dangay may sa bopp jàmm may yàlla jàmm may société bi jàmm waaye newoo ci jàmm mayoo société bi jàmm mayoo yàlla jàmm yàlla ñu ci yàlla musal kon nag salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah santaat naa leen gërëmaat naa leen nuyuwaat naa leen di leen jox nag nu daje ñu gisee ca gàmmu gaag jàmm yàlla def ñu ñu bokk teewee ko maa ngi leen di baal àq te ngeen may baal àq kon nag sëriñ baa ngi noonu waxtaan wi ñun ñëpp ñoo ko bokk maase déggandoo ñëpp bég nañu kontaan nañu sëriñ bi ñëwal nañu ci màggal gi fi sëriñ bi jógee exil bi yëpp sëriñ bi waxal nañu ko ñëw nag ci li nga xamante ni moo gën a am solo ci actualité bi nga xamante ni moo xew ci dëkk bi ci réew mi muy jàmm ndax jàmm kat mooy li jëkk mooy li mujj mu woo ci njiitu réew mi woo ci ñëpp ñi nga xamante ni bëgg nañu jàmm teg ko nag ci njàngale mu mag mi nga xamante ni mooy yaakaaram téeg sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba dégg ngeen ko mu wax ni Bamba mooy salaam ndax jàmm kat ak jéggale mooy li nga xamante ni lu am solo ndax bis bi gën a rëy ci adduna bi muy bisu laylatul qadar lan ca bëgg sax mooy yàlla lan koy bàkke mooy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kon nag yàlla nu yàlla boole jéggal yàlla nañu yàlla boole defal ay ndam yàlla nañu yàlla boole nungul nu sunu màggal sëriñ baa ngi noonu doo gis sax jëmm ji ndax mbooloo mi ni nu baree ni ñu ko daree ñëpp ànd ngir bëgg ko ray bëgg ko ziar ndax kat nenañu nañu man jalasa ma al maghfur ghufr lahu man raa ma al maghfur ghufr lahu kep ku gis ku nu jéggal mel ni yow jéggal nañ la ñëpp di ci ci xam ku di ray di yëkëti seen loxo ngir bëgg tek sëriñ bi loxo sëriñ bi nak wara dugg ci biir kër gi gis nga ko non la ko sécurité bi daré muy ñi nga xamanteni moy wa def bi nga xamanteni moy discipline force foi nga xamanteni sëriñ bi mo leen yar muy ab sécurité bu nekk ci biir kër gi muy xale yu yaru xale yu am jom xale yu am liggéey ci màggal gi ànd kook sëriñ bi gis nga sëriñ baa ngi noonu ñu ànd ak moom nag dugg ci biir kër gi nag war a jublu nag ci li nga xamante ni mbooleem luy taskatu xibaar ci réew mi ak ci bitim réew kon nag ñu jublu ci conférence de presse bi ànd kooko journaliste yi presse nationale ak internationale bismillah wax nga ko léegi sëriñ Touba li mu defoon lépp daf ko doon liggéeyal pour nekk ki nga xam ni mooy taxaw ci takk ndeeru yonent bi ngir liggéeyal ko maanaam relation bi doxoon ci cofeel gi am ci Serigne Bamba ak rasulullah yi lan nga ci mooy dernière question. relation Serigne Touba ak rasulullah damay bëgg sax bala nuy gàmm ngeen fekk ma baax daat ma wax ci ndax loolu dafa xóot ndax nekkul loo xam ne ci moom ni mu ko waxee xëyul rek loola dab ko waaye daf ko njëlbeenoo ci teel. nee na ci teel bu ma saa di bind turam Ahmadou Bamba su ma si bind baatub Ahmadou bi sax du bëgg àgg ci Bamba ji. ñu ko daan dàkkantale ci sant ca Fuuta ñu sant ba ba mu gisee ne boo dee bind sàll nee na dangay def saat ak laam muy mel ni kuy wax sallallahu alayhi wa nee na sax mu dugal ko ci nag daan siñee di wax ne Ahmadou Bamba Sàll di ko signé loolu dugal ko ci cofeel gu teel goo xam ne dafa teel a bëgg Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam mu bëggoon yonent bi bëgg goo xam ne dafa daan wax naan bëgg naa yonent bi ba jaral ma ma dox dagg sama lex di ko ko tegal mu ciy jaar waaye bëggoon na yonent bi cofeel goo xam ne kenn mënul wax cofeel googu naka la sax mën na nekkee ci at yu néew mu nekkoon ci moom ndax daf ko waxul ne lu ko dab la waaye da koo njëlbeenoo dana bëri rek yàlla def moom mu bëgg Seydina Mohamed ndax nee na loolu ba ma nee bëri rek ba yaxtahu bil fuwaadi nee na daal dama ne bëri rek daal di jël nag jaayante rasulillahi def ko muy farata def ko muy def ko nag muy sunna su wér di farata su wér péng ci mat angi na lam taraahu mu ne te sama bët bi tegeewu ko gisuma fenn Seydina Mohamed mu ne ma jaayanteeg moom ma ne ba bi ma yàlla maye may def ixtikaaf ci weeru koor di tëju xalwa ba yàlla may ba sama bët bi tegee ci Seydina Mohamed nee na keroog bi ma tegee sama bët bi gis ko nag mu ne amatuma jàmm ñu ne tax amatoo jàmm mu ne li ci Seydina Mohamed bis bu la ko yàlla wanee nga gedd àddina nee na ma teg bët ma teg bët Seydina Mohamed nee na loolu tax na bëggatuma àddina bëggatuma dara lu dul fas yéene nag fu mu nekk ma nekk fa fu mu jëm ma fa mu ne fas yéene nag loolu ca jaayante yooyu na mu ko waxee nag mu ne ma fas yéene nag def ko nag mu nekk nag mu laaziman kal ahlil badri fas yéene nag taqoog moom ba faw ñii waa badar ñi taqoog moom ma fas yéene taqoog Seydina Muhammad ba fu mu jublu mu jug fa loolu nag cofeel googu nag moo nekk ci moom nekk ci moom ba gis nga dundam gépp daf ko mujj jeexal ci Seydina Muhammad jeexal ko ci liggéeyal yonent bi te musu cee tàyyi mosu cee yokkat ku mu yor ku mu yar ku ne ca la la jaarale ku mu jur ku nekkit ca la la jaarale mbete saw tur sax bu ko jëlee boo ko seetee turu yonent bi la moo xam ca góor la moo xam ca jigéen la lool yi mën na gën a yaatu nag nii ginnaaw boo xamee sax dinaa dajeeg yéen balay gàmm mën a yaatal ndax diggante Serigne Touba ak ak yonent bi dafa nekk benn relation boo xam ne wow na koŋŋ dëgër na ndax Serigne Touba kat lu ko waaye mën a wax lu dul xaadimu rasul marte ba boo ko mën a jiiñ lu dul ku bëggoon dinaa Muhammad la yaa ngi koy tooñ ndax yonent bi rek la bëggoon guddi yonent bi rek la bëggoon bëccëg loolu nag dinaa ci gën a yaataal ak yow dellu si waat ci ah xam naa ne nag ki doon laaj du journaliste sax doomu daara la ndax daal yëf yi gën na gën na xóot luur ci kon nag mbokki jullit yi lii lañ leen jëlale woon fii ci Touba ci Daaru Xuddus ci forage su Baylaat kër Serigne Khadim gay Gaydel